une chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer di ko ñaanal sunu borom gën ko fee yàggal te dolli ko ak wér te wéralal ko ñi ko wër di ñaan suñu borom tëbb ko kattan ba mu àggale yéeneem ci lislaam àggale yéeneem ci ñoñ lislaam te àggale yéene taalibe yi ci moom di nuyu bu baax jawriñi cheikh Mouhamadou Lamine Baara sëriñ Mouhamadul Moustapha ni cheikh Sidil Muxtaar di ko ñaanal li nu ñaanal kilifa gi te moo di yàgg fii ak yeggale di nuyu ak jataay bi ak bokk yi fi nekkal yépp di beral am nuyoo akub siyaar boroom jataay bi Serigne Cheikh moom Serigne Abdul Karim mi ñu sedd bés bi muy lu am solo yi may faral di wax ci bis yu demee nii li tax mu jara fonk yi ci daje dafa bari bés la yoo xam ne mën nañ cee fàttaliku sunu mag man mën nañ cee jokk sunu bokk mën nañ cee suuxat sunu pas-pas yépp daje na ci bés bi te ñu yàlla dogal ñuy organiser bés yi bàyyi nañu xel loolu yàlla na yàgg te sunu borom dolli jàmm ci réew mi am na nu mbégte lool ci dellusi gin dellusi ci jataay bii nga xam ne cër bi nu ci jox cër bu rëy la ci nun ndax jëf ju baax gor su ca nekk woola dalaa bëggal njariñ lu toll ni loola am na loolu kenn amul ak payam lu dul sant rekk kon mboolem setti sëriñ Abdul Asiis Baara noo ngi fedd li suñu cant ci ñoom di ñaan suñu boroom yàggal leen fi te kàttanal leen ba yéene ji ñu am ci liggéeyal seen maam ci kër sëriñ tubaa ñu am ci lu ko we seen jort maa ngi nuyu bu baax Serigne Saalihu Mbàkke moom sëriñ Modou Fati Xari mii nga xam ne ci moom la ma Serigne Xaadim Mbàkke mii xame ba jataay yii di am te lépp tege ci kóllëre bés ji bañ ko dalee def yàgg na lool waaye yàggees na fee dégg sama kàddu te at mu jot ñu soññu ma ci te du xam-xam du man-man seenu baax la rek ak seen am kóllëre yàlla na leen yàlla fay kàddu gi du mën a guddi ndax waxtu wi waaye li nu fi dajale maanaam fii nu daje ak ki tax nu daje fi dafa mat a bàyyi xel fi nu daje béréb la li tax nu daje fi di mbir ki nu fi dajale di mbër yàlla sunu boroom mi nu tànn mi nu sàkk tànnal nu barab bi danoo dénk mbir moo xam ne daje waxtaan ca la bokk muy lislaam loo gis mu lëj gaa ya ko séq wax ñu séq mbir waxtaan ca faw muy dox te jullit yi nag lislaam rekk lañu am lislaam lañu séq foo dégg wolof gi koo xam ne jëm jëmm xool ba wax ko mbër day doon koo xam ne la mu doon mbër def na ca lool ñamu ko seqal mënuñu ko ci loolu la ñuy ne Cheikh Ahmadou Bamba Xadimu Rasul mooy mbërum lislaam ji ndax moom mooy koo xam ne déggaguñu fenn ku lislaam jaral lim ko jaral taarix nett léegu ko mooy koo xam ne léppam ak féppam ak ñéppam ngir lislaam rekk la am na lennam lu mën a lu mën a représenter léppam te mooy mbindam am na fennam fu mën a représenter féppam te mooy Tuuba gi nu nekk am na kennam ku mën a représenter ñéppam muy ku mu noppi ci moom ku mu noppi ci moom rek mën naa représenter ñéppi Sëriñ Tuuba loolu li mu ci déggee mooy ki tax nu daje fii tey kenn la ci ñooñu muy Sëriñ Abdoul Aziz ibnu cheikh Mouhamadul Lamine ibnu xadimu rasul ak dundam jaar-jaaram ku ko jàngat danga xam ne ku sëñ Tuubaa noppi ci moom la yàlla nañ ko yàlla fayal ñi daje tey ni ko daan defee saa yu daje bi ñëwee danañu tànn ab tem tànn boroom xam-xam ci lañu tànn tey nag sëriñ naa Mbacke Abdoul Wadoud muy koo xam ne jaratul présenté fii ci yoon wi walla ci dëkk bi walla ci liggéey bii nu nekk yooyu yépp ràññiku na ci ñu xam ko ci liggéeyal lislaam te mooy ndonoom bu ñu ko dee présenté aw yóbbaale na way juram sëriñ Seexuna Mbakke Abdul Wadud sëriñ Abdul Abdul Wadud Mbakke moom sëriñ Mudu Farmata moom sëriñ Afiya Mbakke mooy way juram sëriñ mu aduma mu ñang mu baax mi fi nekkoon radiyallahu anhu ñëpp xam ko ci yoon wi di nijaayam mu jànge alxuraan ci dëkk bii nu nekk di Tuubaa ci kër maam sëriñ Ibra Mbakke mi ñu daan wax sëriñ maam mu nekkoon fii ci gar bu ndaw fi la jànge alxuraan ba mokkal alxuraan 1976 1976 mu jóge ci daara ji 1977 78 mu dem ndaam ci daara sëriñ Murtala mag jooju nekk fa ba 1984 mu dem Égypte bi mu demee Égypte nekk ci ashar bu mag boobu nekk na ci Iskandariya nekk na ci Xaayra ndax booba askan Iskandariya dafa am lycée mu nekk ci lycée ba bi mu waree dem université la dem Xaayra 1992 la jóge Égypte dem France nekk Paris ci université Sorbonne ba 1995 mu ñibbi si waat Sénégal bi mu ñëwee Sénégal nekkaat ci daara jooju mu bàyyi ko woon di HR bokk ci direction générale bi boole koog di jàngale ci école ashar yi ak ci école gouvernement bi nekk na it ci administration complexe Seexul Seexul bi bii mun Muntaxa taxawal mu bokk ci ñi yore liggéey boobu loolu mooy liggéey bi nga xam ne ci la nekk ak yëngoom jëm ci yaatal njàngalem sëriñ bi ci fànn yu bari te mooy di bind ay téere di ko traduire ci ay làng yu wuute ba noppi itam di ci waxtaan lu mel ni lim nar a def tey nekk na it imaam ci jumaa yi bustaanul arifina kooku moom lañu fas yéene jox waxtaan wi tey li mu nar a waxtaane ak nun moo di xam-xam ci boppam am gi mu am solo ci diine ak ci dundug doomu aadama loolu nag yaakaar naa ne ku jaar fii mu jaar buñ ko joxee tem bu mel noonu buñ ko mayee xel te déglu ko sunu borom mën na noo tawféexal nu jariñu ci li ma koy tënk yi yëpp rek mooy doomi daara ju wër ay daara ba yor daara moom la ñu jox liggéey bi tey bés yu mel nii nag damay ñaan nu di leen jàppe daara te bu ñu ko jàppee daara it nu xam ne daara dañ cay jànge waaye def ca xawaare sëriñ Seexuna noo ngi lay dalal di la tatagal di la ñaanal yàlla ubbil la sa dënn leeral sa làmmeñ ba li nu yaakaar ci yow yàlla dëppale ko ak ci yéene ci barke Sëriñ Tuubaa bismillah Baay Omar noo ngi lay delloo nuyoo di nuyu itam mbokk yi fi teew yépp te di ci jiital kilifa yi di nuyu itam képp ko sunu kàddu àgg ci moom ak fu nekk xam naa dañuy gën a tënk waxtaan wi tey ndax xaw naa guddi waaye mi ngi jëm rek ci xam-xam solo su mu am ci diine ji ak solo su mu am ci dund gi noonu la nu lañu sàkkoo ci noonu nu jëmee ci waxtaan wi buñ naan diine naan dund gi waxin la rekk waaye du yu safaanoo ku daan wax lu mel ni day mel ne yu bokkut te dëgg-dëgg doonuñ yu wuute ndax diine ci dund gi lañ koy jëfandikoo dund gi itam diine moo koy lijjanti kon dëgg-dëgg du ñu wuute waaye waxin la rek jublu rek li nga xam ne moom la nit ñi di faral di wooye diine ak li ñuy faral di wooye dund gi waa ci dëgg-dëgg du ñu yu wuute li nuy njëkk a xam rek mooy ne xam-xam mooy tax nit ki mën a am li mu bëgg ci àddina li ñuy tuddee réussite réussite ci àddina xam-xam mooy tax nit mën koo am waaye texe ak mucc bu ëllëgee itam muy ca àllaaxira xam-xam mooy tax nit ki mën koo am am na bayitu sëñ bi wax boo xam ne man dama jàpp ne yaar yëpp dugg nañ ci bi muy wax ak ndaw ñi ne bu ngeen bañee bu ngeen ragalee gàcca bu ngeen ragalee gàcca bala ngeen a jëf na ngeen xam gàcca googu man dama jàpp ne yëmul rek ci lu ñuy tuddee mbirum diine waaye mbir mu manti doon rek mu nit mbir mu nit di dugg rek te jiitalu ca ak xam gàcce mën na ko caa fekk kon kuy dugg ci mbirum jaamu yàlla wala mbirum aada mbirum ak dund lu ci dund gi bu ca bañee gàcca na jiital xam yaa ayuha shubaanu in xiftum xajal di fa lu man ala amal kon loolu rek moo tënk nekkoon kon xam-xam lu munta ñàkk la ngir nit ki mën a am li mu bëgg ci àddina muy réussir wala réussite xëy na ci wolof bu neexoon nu ne ki mooy tax itam mu mën a mucc bu ëllëgee ca àllaaxira bu ko defee kon dañ koy def rek ñaari tomb yooyu solo si mu am ci diine ji ak solo su mu si si mu am ci dund gi bu dee ci diine ji dañ koy tàmbalee ca tàmbali ba yàlla bi muy bëgga sàkk sunu maam aadam te wax ko malaaka yi ñoom dañoo jàppoon ne daal te leen ne it da ko da ko bëgg def mu nekkal ko ci kaw suuf ñoom ñu jàppoon ne ci waxin ñoo ci gën a yey ndax ñoom duñ ko mooy benn yoon te nit ki nar yàlla nar a wàcce ci kaw suuf nag moom mën na ko fee mooy waaye yàlla da leen ne xam naa lu ngeen xamut gis nga mbirum xam daal di tàmbali xam naa lu ngeen xamut mooy kon man mi ko nar a sàkk andi ko fii ci kaw suuf mu nekkal ma fi xam naa lu ngeen xamut yeen ñii jàpp ne yéen a ci gën a yey ndax yéen du ngeen ma mooy mukk ba mu sàkkee aadama ba noppitam mu xamal ko lu mu xamalut malaaka yi ngir won leen li tax mu def ko lii mu koy def te defu leen ko ñoom loolu tam ak xam la kon xam gu ne ci moom te nekkul ci ñoom moo tax mu man liggéey bii te ñoom duñ ko man ba mu ko xamalee aadama ba noppi laaj ko malaaka ñu ne ko ah noonu koy xamun mu laaj ko aadama mu wax ko ñu xam ne kon am na lu mu xam lu ñu xamut ba mu ca jógee da ko teral ci seen kanam mooy digal leen ñu màggal ko kon dañuy mën a jàpp ne teraanga jooju ak li mu digal malaaka yi ñu màggal ko xam nga ne ci moom te nekkul ci ñoom bokk na ci li ko waral gis nga ci cosaanu sunu maam aadama ak kon ci sunu cosaan nun ñëpp sunu cosaan rek kon ak xam ak xam-xam nam ca feeñe diggante nit ak malaaka na aadam ak malaaka damay lu ko yàlla xamal te xamalu leen ko moo tax mu mën a yor liggéey bii te ñoom mënuñ ko mënuñ koo yor kon day wane ne li tax yàlla def doomu aadama mu teewal ko ci kaw suuf teral ko itam teraanga jëm ko teral cosaan la dëgg-dëgg ci xam lay dellu ak xam-xam boo xam ne def na ko ci moom te defu ko ci ci ñeneen loolu ay aay yu tegaloo rek ci suuratul baqara wa id qaala rabbuka lil malaaikati inni jaacilun fi l ardi xalifa ba ca wa id qulna lil malaaikati isjudu li aadama fa sajadu illa iblisa aba wastakbar wa kaana min alkaafirin loolu la ci la ciy kon loolu lenn la luy wane solos solos xam-xam ci diine bokk na ci liy wane solos xam-xamit ci diine mooy lu yàlla wone ne moom yàlla day seere ak kenn ni mu nekke kenn malaaka yi itam dañ koy seere waaye boroom xam-xam yi itam dañ koy seere loolu tolluwaay la loolu daraja la joo xam ne li ko may li koy may nit mooy xam-xam shahida allahu annahu laa ilaha kon teraanga jooju te mooy bokk ci ñiy seere kenn yàlla teraanga jooju xam moo koy may nit ba mu mel ne bu yàlla seeree malaaka yi seere moom itam mu mën a seere teraanga jooju xam-xam moo koy maye loolu it day wane wàccuwaay boo xam ne kon euh, ak solo sos xam-xam am na ko ci wàllu diine waaye ba tey alxuraan mi ngi nuy xamal na it ragal yàlla dëgg dëgg dëgg ñi xam ñoo ko mën a am ñi xam ñoo mën a amuk ragal yàlla dëgg dëgg innama yaxsha allaha min ibadihi al ulama mooy ñoom rek waxee ni loolu lay firi ñoom rek ñoom rek ñi ragal yàlla ci jaamam ñi ñooy ñi xam rek rek kon loolu it day wane kon solo sos xam-xam am na ko ci diine mooy ñi ko am dëgg-dëgg ñoo mën a am ak ragal yàlla gi tax ñuy wax liy wone soloom ci diine it mooy sàkku ko farata la sàkku xam-xam farata la ci jullit bu ne jullit bu góor ak jullit bu jigéen la cay farata nag mooy lay tax nit ki mën a def ay farataam nit ki liy tax mu mën a def ay farataam nañ ko bëggee ci moom loola farata la ci moom mu xam ko mu sàkk koo xam ba xam ko yonente bi moo waxoon ni sàkku xam-xam farata la ci jullit bu ne lépp loo xam ne nag dem nañ ba ne farata la loola soloom ci lislaam kon dañuy xam ne solo su mat sëkk la ndax farata moo féete kaw lépp loo xam ne ku ko def ngir li ko yàlla jigle yàlla fay ko ca tuyaaba waaye bu ko defut te amul ngànt mu yeyoo ca ay daan mu am ca bàkkaar yeyoo ca ay daan kon sàkku xam-xam farata la ci jullit bu ne loolu day wane kon solo soo xam ne xam-xam am na ko ci ci wàllu diine bokk na ci liy wane soloom it ci diine li nga xamee ne xam-xam moo war a jiitu jëf ni ko sëñ bi waxe woon ne bu ngeen ragalee gàcca bala ngeen a jëf lenn na ngeen jiital xam kon ak xam moo war a jiitu jëf sëñ bi day wax ne ci masaalikul jinaan bu waxee ne jë xam-xam ak jëf ju baax ñoom ñaar ñooy may nit yiwu àddina ak wu waaye mu teg ci nag ne waaye nag xam-xam bi moo gën moo gën jëf ju baax ci teyit mooy laltaayam mooy moo war a ñëw jëf ju baax ji tege ci kawam waaye xam-xam bi nag njariñam ak meññetam mooy jëfe ko mooy jëfe ko kon dañuy ànd lee mooy jiitu waaye duñ ca yam lee da cee topp kon xam-xam bi mooy laltaay waaye nag jëfe ko da cee topp mu door am njariñ moom it jëf munta am njariñ te xam-xam lalu ko waaye xam-xam itam munta am njariñ bu ca jëf topput noonu la ko waxe ne sax liy wane ne moo gën mooy ki jëf jëf ju baax ju bariwut bariwut lool waaye nag ak xama ko lal jëfam joojee moo ëpp tuyaaba ki jëf jëf ju baax ju bari joo xam ne ak xam lalu ko wal ilmu afdalu axi min al amal wa ussuhu fa faaza man lahu xasal lakinnama thamaruhu kan nafi fi amalin bihi fa kun dal jamci qaliluhu bil ilmi aktharu thawaab minal kasiri ma jahlin lartiyaab kon mooy xam-xam mooy jiitu jëf ju baax moo koy lal waaye itam nag moom it balaa am njariñ mooy dañ koy dañ koy jëfe waxoon na léegi lim waxoon ci ne buñ bañee bu ñu ragalee gàcce ndaw ñi lay waxal ndaw ñi bu ngeen ragalee gàcca nangeen ngeen di jiital sàkkoo xam mooy na ngeen jiital jàng bala ngeen a jëf leneen luy wane soloom nag mooy yittewoo gi ko sëñ bi yittewoo ci boppam sëñ bi lu mu yittewoo rek dañuy dañuy xam ne lu am solo la lu mu jox yitte rek dañuy xam ne lu am solo la ci diine yittewoo gi ko sëñ bi yittewoo mën nañ koo xame ci anam yu bari anam gi ci njëkk mooy wane gum wane moom sëñ bi ne sàkku xam-xam day lu war ni ko yonte bi waxe woon kon da koy feddali waaye moom sëñ bi mu xame xam la ne nit wër te def lenn te xamul lu ca yàlla àtte kon nit di def dara te xamul lu ca yàlla àtte dafa araam kon balaa kenn def dara mooy li ma rek balaa kenn def dara na jiital xam na xam lu ca yàlla àtte ba noppi ndax lu mënti doon moom am na àtte bu ca yàlla àtte lu nit bëgg def rek lu ñàkk àtte bu ko yàlla àtte benn mu doon lool yàlla danaan danga ko war a def walla mu ne ko sañoo koo def lu araam la walla mu ne ko def koo gën wala mu ne ko bañ koo defa gën def koo gën mooy lu ñu sopp la bañ koo defa gën mooy lu ñu sib la wala mu ne ko def geeg bañ gee def ci yow la aju rek mooy lu dagan yooyu munta ñàkk ci jenn jëf yoo xam ne nit bëgg na koo def àtte benn ci yooyu dana ca am moo tax sëñ bi ne kon def lenn te xamuñ la ca yàlla àtte lool lu araam la wa fi'lu shay'in qabla an ya'lama ma xakama fihi mutlaqan rabbu sama mimma ala mukallafin qad xaruma qaddim ala ibadatin taalluma muskallaf mu ne araam na ci moom mu def lenn lu jiitu muy xam la ca yàlla àtte mu waxaat loolu mi ngi ko wax ci al nafis tasawdu tasawdu siraar mu wax ci ne ku xamul farataam te laaju ko mooy ku ku jàngut ba xam ko walla mu laaji ko bu ci defut lenn ci yaar yooyu yi nee na alag na boppam tooñ na boppam man kaana jaahilan bi fardihi walam yasal fa nafsahu abada wa zalam kon euh, li njëkk ci liy wone yittewoo gu sëñ bi yittewoo xam-xam mooy wone gum wone ne sàkku ko day lu war te itam day araam ci muskàllaf mu ne muy def lenn te fekkul mu xam la ca yàlla àtte ba noppi bu dee ko yàlla ne danga koo war a def mu def ko def koo gën mu def ko sañoo koo def mu bañ koo def bañ gee defe gën mu bañ koo def def keeg bañ gee def ci yow la aju it mu tànn ca la ko soob waaye na njëkk xam ba noppi doora doora def mbaa mu bàyyi leneen luy wane yittewoo gu sëñ bi yittewoo xam-xam mooy sëñ bi xam nan ne aw yoonam mi ngi ko tabax ci ñetti ponk ñetti ponk xam-xam bu am njariñ la cay teg ak jëf ju baax ak teggiin yu ñu nangu ñetti ponk yooyu yi mooy ñetti ponk yi nga xam ne sëñ bi fu muy waxe mbiram danaan ñetti ponk yooyu ñoo ko ñoo ko taawu ñetti ponk yooyu nag xam-xam bi la ci jiital kon jiital gi jiital xam-xam ci ponk yi taawu mbiram day wane yittewoo goo xam ne moom it sëñ bi yittewoo na ko xam-xam te li ñu waxoon léegi rek moom lay wane wane ne xam-xam moo war a jiitu jëf ju baax moo koy laltaay itam ci masaalikul jinaan maxaaliqul niiraan tam waxaat fi lu mel noonu ne xam-xam ak jëf ñooy may nit ki yiwu àddina ak wu alaaxira waaye nag ñaar yooyu bi ci bi li ci gën a tedd mooy xam-xam bi moom lañu war a jiital ndax kuy jëf te àndut ak ak xam jëfam jooju day mel ne pënd bu ñu jëri pënd bu ñu jëri ci ngelaw mu tasaaroo rek ni muy ñàkkee njariñ kiy def te la muy def tegu ko ci xam itam noonu lay ñàkkee noonu lay ñàkkee njariñ waaye leen ko waxe woon léegi it mu waxaat ne nag waaye jëfit xam-xamit moomit balaa am njariñ jëf da cee topp ndax ku xamit te jëfut day mel ne rek mbaam mu yanu ay téere ni ko yàlla wax ci alquran yàlla wax ci alquran ne ñi ñu jox tawraa te jëfewuñ ko dañoo mel ne ay baam yu yanu ay téere sëñ bi loolu la waxaat fii fa l ilmu wal jawharaani li xayrayi daarayni yajlubaani wa ashrafu l aslayni ilmun quddima kama ata bi xadithun qad sama id kullu aamilin bila ilmin yura fa saayuhu mislu habain nusira wa man xawa ilman wa laysa yacmalu bihi fa innahu ximaarun ci maxaaliqu niiraan kon loolu day wone ne xam-xam la sëñ bi jiital ci yetti ponk yi nga xam ne ñooy ponki ab wooteem ponk yi euh, ab tarixaam ñooy ponk yi mbiram ci boppam rek ñetteel ci wone yittewoo gu sëñ bi yittewoo xam-xam mooy soññeegum ci soññee soññeegum soññee ci sàkku xam-xam rawatina ndaw ñi soññ na ndaw ñi bu baax ci ñuy sàkku xam-xam waaye ñépp la ci soññ daa fekk rek ne ndaw moo ko gën a man moo ko gën a man moo tax mu gën ko cee soññ waaye nag ñëpp la ci soññ ba tey li mu waxoon ci ginnaaw rek te du subaan yéen ndaw ñi yéen waxambaane yi bu ngeen ragalee gàcca nangeen jiital xam bala ngeen a jëf ci nahju qadaa il xaaj ba tey te soo du subaan mu ci wax ne kon ñépp nangeen ngeen maase sàkku ji xam-xam ngir yàlla fasaari'u lil ilmi muz'inina naawina wajha llahi ajmaina yéen ñépp kon na gaaw sàkku ji xam-xam ngir yàlla waaye ci nax ju ci lay wone li tax mu gën a jox yitte ndaw ñi ci soññee ci sàkku xam-xam mooy waxtu woowu day waxtu yu gën a déggoo ak moom ndax dane koo xam ne ci bi mu nekkee ndaw ay soxlaam bareegut ay yitteem bareegut bu gaawul sàkku ca xam-xam bu demee ba yitte yi ñëw ak soxla yi ñëw bu bëggee sàkku xam-xam it euh, du ca mën a am lam ca bëgg id kullu man lam yatabadar lil ulum maa tafarruqin laha qabla alhumuum fala yanaalu gaaliban matluuba minhu walaysa yaxtawi marxuuba kon ki nekk ndaw mooy ci sàkku xam-xam gën a jàppale ci moom ndax bareegut ay soxla bareegut ay yitte ku dem ba weesu foofa nag ba soxla yëg yittey ñëw bu ca bëggee sàkku xam-xam am ca lam ca bëgg du yomb moo tax mu gën a jox te ndaw ñi ci wàllu soññi leen ci sàkku xam-xam waaye nag ñëpp la ci soññ gis nañ ko ci tasawudu tasawudu siraar noonu la ko tudde waaye teewut ca biir mu ngay wax ne ba ci borom bi jaaw yi sax ci lañ ba ci borom bi jaaw yi ci lay waxee nag koo xam ne bi mu nekkee ndaw teel naa jublu ci sàkku xam-xam ak njub bu doonee mag dana noppalu waaye kii yàlla nattu ba ba mu nekkee ndaw jaarut foofa it bu nekkee mag it nag na jéem a dabaatal na jéem a dabaatal bu dabaatalee dana mën a am dara moom it waaye buum ne rek léegi mag laa léegi mag laa duma ma duggati ci sàkku xam-xam wala du ma duggati ci sàkku njub ku ko teele woon moo koy gën a noppal waaye ku ko defutoon ci waxtu it buum jàpp ne dafa wees ci moom ci soññee googu dañ ci dugal bataaxel bi mu bindoon boobu mi ngi ci géej gi bindu ko yónnee ko ci réew mi ne nañ ko tasaare ci fere yi te mooy bind ne digal naa képp ku wékku ci man ngir yàlla képp ku aju ci man ngir yàlla digal naa ko mu jàng lu aju ci ay pas-pas muy ngëm lu aju ci attey laab ak julleeg woor ak yu mel noonu digal naa képp ku aju ci man mu jàng lu aju ca loola lépp loo xam ne rek lu war muskàllaf la mu jàng luy tax mu man ko loolu mooy li doon farata ci xam-xam xam-xamu diine la cay farata mooy li nga xam ne euh, muskàllaf mu ne la war muskàllaf mu ne kon war naa xam nu mu koy defee xam nu mu koy defee moom farata la joo xam ne kenn ku ne la war lu ca topp nag loola moom duñ ne kenn ku ne lay war waaye war nañoo fexe ba am ba am ñu ko xam ñoo am xam-xam bu yaatu boo xam ne weesu na rek farata yi nga xam ne moom la kenn ku ne war a defal boppam bu dee farata yooyu nag kenn ku ne moom da ko war a xamal da ko war a xamal boppam mu wax ne bi mu diglee loolu te góor ak jigéen la wax góor ak jigéen ku wekku ci man góor ñi ak jigéen ñi ku ci nekk digal naa ko mu jàng lii li nga xam ne mooy tax mu mën a def li ko yàlla digal ci wàllu ngëm ak ci wàllu jaamu yàlla yi mu teg ca nag ne man nag maa maa leen warlul taalifal leen téere yoo xam ne da ngeen ca fekk loolu lépp loolu mu warlu woon nag moom def na ko ndax taalif na téere yooyu yi ñuy tudd fii tasawdu siraat du shubbaan yooyu aljawharu nafis yooyu yëpp lu mel noonu moo ca nekk kon loolu day wane kon soññee moom sëñ bi soññee gu mu soññee ci sàkku xam-xam te jiital ci nag ndaw ñi waaye ba tey lii wane solo su mu jox yittewoo gu mu yittewoo xam-xam mooy <clears throat> ni mu soññee ci sàkk ko noonu la moytuloo itam gàllankoor ko ni mu soññee nit ñi ci ñu sàkku xam-xam noonu la moytuloo nit ñi itam gàllankoor xam-xam gàllankoor ko ak anam gu mën di doone mu wax ne ku leen di tere sàkku xam-xam na ngeen xam ne tereem googee ak réer rek la mën a doon ak réer rek la ak nag lu mu mën di wax ak lu mu ko mën di waxee ginnaaw moom da leen di euh, da leen di tàyyelloo ci sàkk xam-xam rek na ngeen xam ne loolu ak réer kese la mën a doon mënta mu waxaat na itam ku leen di tere sàkku xam-xam na ngeen xam ne moo fi teewal seytaane moo fi nekkal seytaane moo fi nekkal ibliis moo ko fi nekkal ba lépp lu muy yàq bu fi bu fi nekkaloon boppam lépp lum doon yàqal boppam moom mii moo ko yàqal te bu ëllëgee nag moog yàlla kiy def loolu sëñ bi ne na bu ëllëgee mook yàlla mooy yàlla la koy diggaaleel waxaat ne képp ku leen di tere sàkku xam-xam nangeen xam ne ci alkande rek la leen jëme ci mbugal rek la leen jëme loolu lépp kon da ci day moytuloo nit ñi ñuy gàllankoor xam-xam ci anam gu mën di doon bu ne ku leen di tere sàkku xam-xam loolu néew na nit di ko defee nu fese noonu nit di ko defee nu fese noonu bariwut nit kuy sàkku xam-xam am ku ñëw nangu ay téereem ne ko bul demat wala am doomam bëgg jàng mu ne ko déedéet bul jàng néew na waaye yeneen anam lañ koy defee mooy tàyyelloo rek tàyyelloo mooy di di di di di woyofal xam-xam ci kanam ndaw ñi di woyofal xam ci kanam ndaw ñi wala di wax ay wax yoo xam ne sax ku xamut da koy ragalloo léeg-léeg am ku ne bu gisee ndaw lu ndaw lu def yitteem ci sàkku xam-xam mu ne ko ah, li de baax na waaye sëñ bi de kenn du ko xamee ciy téere loolu gàllankoor xam-xam la gàllankoor xam-xam la waaw loolu de baax na waaye nag ak taalibe am solo gàllankoor xam la sëñ bi wax lépp foofu lay dugg foofu lay dugg ndax wax la jooj firiwut dara te ku xamut mën na koo ragalloo ku xamut mën naa jàpp nekkoon day mel ne xam-xam bi muy sàkku moom euh, day tax du doonu taalibe ndax bu mujj na ko ak taalibe am solo xam ne baax na ak taalibe am solo bu xamut day mën naa jàpp ne dañoo bokkut sëñ bi dee su ko xamee ci téere mën naa jàpp ne kon euh, bu nekkee ci téere yi keneen ku nekkul ci téere day xam lu mu xamut waaye bu ñu ko xamut ci téere duñ ko xam ci leneen tam buñ ko xamut ci téere duñ ko xam ci leneen boo amee lu ñu mën a xam ci moom ci teer lañ koy xamee ci moom lañ koy xamee kon yooyu yépp ci buntu gàllankoor xam-xam lay dugg te li sëñ bi wax lépp ci yii day jëm foofa moo tax gàllankoor xam-xam néew na nit di ko def ci anam gu fees waaye nag ci anam yu mel noonu lañ koy defe bokk na ci liy wone yittewoo gu sëñ bi yittewoo xam-xam mooy moom ci boppam jàngale gum doon jàngale da doon jàngale moom ci boppam bi fii sëñ mu warante sali nekkee sëñ bi da ko doon jàppale ci daara ji ba ci mu jëm sax daanaka mu féetewoo ko te way juram nekk fi fi way jur yu jógee moom mu yoral ko boppam ab diir ba mu demee nag ba yitte yi mayeetu ko mu koy defal boppam mu samp ñu koy def mu samp ñuy jàngale xam-xam samp ñu jàngale alxuraanul karim samp ñuy jàngale samp ñuy jàngale xam-xam loolu kon day wane yittewoo gumu ko gumu ko yittewoo moom sëñ bi bokk na ci yi wane yittewoo gi mu yittewoo xam-xamit moom sëñ bi gis naa naal bu mu amoon ci defar jàngu bu mag ci Touba walla njaareem di fu fu mu amee baax na sëñ Mbàkke bi su noonu la ko nettalee foog na Touba wala njaareem fu mu ci amee baax na waaye daal amoon na naalu def jàngu bu mag boo xam ne képp ku bëgg xam-xamu lislaam boo ci bëgg rek euh, ci te nekk ci biir réew mi da nga ko fi mën a wutsee waaye xëy na li tax ñu gën a jàpp ne Touba ko gënoon a bëgge mooy jamono yooye dafa digle woon ñu defal ko kàggu ci Touba kàggu mooy fu ñuy denc ay téere ñu defe ko anam goo xam ne jamono yooye daanaka amu xamuñu woon anam googu mooy dañ koo tabax foog naa mooy la dañ koo tabax mu yable woon yebaloon kenn mu dem Misra mu dem Égypte jënd fa ay téere yu baree bari naar gànnaar la yebaloot moo demee sub jënd fa ay téere yu bari ngir bu ñëwee ñu def ko ci kàgg googee ñuy jàng di ko man di di ko man di jëfandikoo loolu lépp day wane kon yittewoo gu mu yittewoo xam-xam kon yittewoo gu mu yittewoo xam-xam rek day wane kon solo su solo su xam-xam am ci wàllu diine kon solo si mu am ci wàllu diine mënees na cee tënke loolu yiñ tudd yépp ba daanee la ko ci yittewoo gi ko sëñ bi yittee woon loolu mënees na koo tënk ci solo si nga xam ne xam-xam am na ko ci wàllu diine bu dee ci wàll wàllu dund gi ci boppam nag liy wone solo su xam-xam am waaye li ñu waxoon tam ci ne diine ak dund gi wuute duñ duñ ñaar yu bokkut yoo xam ne diine ji daa nekk fee dund gi nekk fee dana feeñ fii it ndax buñ naan bépp xam-xam boo xam ne nit ñi dañ koy aajowoo ci seenug dund ngir jublu yi nga xam ne moom la yàlla jublu ci tëral lim tëral yàlla li mu tëral moo xam lu digle la moo xam lu mu tere la lu ci ne dafa am ak jublu gum ca am lu mu bëgg mu sotti yooyu lañuy ñuy ay jublu jublu yooyee bépp xam-xam buy tax jublu ya mën a sotti sàkku ko day doon faratay mbooloo mi day doon faratay mbooloo mi bokkut ak li ñu waxoon ci ginnaaw farata joo xam ne moom faratay kenn ku ne la faratay kenn ku ne moom mooy lu aju ci maanaam la mu war a sàkku ci xam-xam tamit farata ci moom mooy lu aju ci lay tax mu mën a def ay farataam da ko la yàlla farataal ci moom waaye nag li nga xam ne nit ñi dañ koy aajowoo ci seenug dund te bu amut seenug dund dana li ñaan karaj lépp lu deme noonu xam-xam bay tax loola am day doon farata ci mbooloo mi ñu fexe ba am ñu ca féete ba am ñu ca féete moo tax bi ci alquran yàlla bu muy bi muy wax ba ñuy jihaad jihaad ku ne xam na wàccuwaay bi mu am waaye ba ñuy jihaad it dane woon a bu ñëpp demandoo ci jihaad ji nag bu ñëpp demandoo ci jihaad na am nag ñu sàkku ji xam-xam bu amee ñu dem ci jihaad jiit na am ñu sàkku ji xam-xam ba seen xam-xam boobee bu ñëwee man cee jariñ seenu xeet falaw laa nafara min kulli wa ma kaana al muminuuna liyanfiru kaafa kon mooy jullit ñépp waruñoo demandoo ci jihaad ji wa ma kaana al muminuuna liyanfiru kaafa fa lawlaa nafara min kulli firqatin minhum taifatun li yatafaqqahu fi ddiini wa li yundiru qawmahum ida rajacu ilayhim laallahum yaxdaruun kon mooy war naa am ñoo xam ne dañuy dem sàkku ji xam-xam xam-xamu diine la tudd waaye lam ca taj ca la ñuy xamee ne xam-xam beneen tam ca la ndax xam-xamu diine buñ ko sàkkoo day tax ñu mën a jubbanti seenu xeet mooy seenu xeet dañoo aajowoo ku leen jiite ci wàllu diine kon war naa am ñu sàkku ju xam-xamu diine ngir jiite leen ci waaye noonu lañu aajowoo itam ku leen jiite ci yeneen wàll yeneen wàll yépp itam war naa am ñu dem sàkku xam-xam yooye ngir mën caa jiite seenu seenu xeet jublu yooyu nu waxoon jublu yu mag yi nga xam ne ñooy yi gën a mag dañ naan jublu yi gën a mag nga xam ne lu yàlla digle mbaa mu tere ko day sottal lenn ci jublu yooyu jublu yooyu bokk na ca sàmm bakkanu doomu aadama sàmm bakkan bokk na ci sàmm diine bokk na ci sàmm am xel bokk na ci sàmm alal bokk na ci sàmm aw askan juróom yooyu lañ naan ñooy jublu yu mag yi nga xam ne daanaka lépp lu yàlla digle mbaamu tere ko rek bu ko diglee def ga day sottal lenn ci yii bu ko teree itam bàyyi ga day sottal lenn ci yii yii nag buñ ko seetloo dana ci am yooyu day am xam-xam yu koy maye xam-xam yu koy maye yooya day doon farata ci xeet wi am ñu fexe ba am ko mu taxaw daal ba am ñu xam xam-xam boobu buñ nee sàmm bakkan sàmm bakkan mooy ak dund dunduk nit ki ñu sàmm ko sàmm bakkanam sàmm bakkan bokk na ci li koy maye ma ngay tàmbalee cig wér cig wér ak wér kon bépp xam-xam boo xam daa aju cig wér mooy liy tax nit ki wér ak bu wéree de itam lay tax mu mu mu mu faju ñaar yooyu yëpp day dugg ci lu aju cig wér lépp lu aju cig wér kon xam-xam buy tax ñu mën a sàmm bakkanu nit tam tàmbalee ci sàmm ak wéram xam-xam yooye kon day doon farata kon lépp lu jëm ci wàllu ñu tudde médecine day doon farata am ñu ko am du ne ñëpp du ne kenn ku ne daa war a jàng médecine waaye war naa am ñu jàng médecine ñu doy ñoo xam ne danañ féete nit ñi foofu ba mën leen sàmmal seenug wér ci misaal sàmm bakkan bokk na ci dëkkuwaay bun bun bun seetloo yàlla ci ci bi mu yóbbu sunu maam Aadama ak sunu maam Xawaa ca béréb ba leen yóbbu te muy ab dër dër ba mu leen yóbbu woon dër ba dana leen fii daal am na fi yent yoo xam ne moom maa leen ko warlul maa leen ko warlul yent yooyu mooy du ngeen xiif du ngeen rafle du ngeen mar ab aw naaj itam du leen gaañ inna laka allaa tajua fiha wala taara wa annaka laa tadmau fiha wala tadxa yant yooyu ku ko seetlu day mel ne kon yant la yu nit di aajowoo yooyu mënu ko ñàkk dëgg-dëgg muy lekk ak naan ak sol solu muy woddu ak it lu ko lu ko fekk lu ko fegal jant bi ak naaj wi kon yooyu yëpp it buñ ko seetloo day mel ne ci ci sàmm bakkan doomu aadama lay dugg ba tey yooyu yëpp day sàmm bakkanu doomu aadama muy lekk gu baax naan gu sell gu baax di fegu ci aw naaj di euh, bi ci des mooy ban ak di di solu mooy di am di am col gu baax yooyu yëpp dëgg-dëgg ci sàmm bakkan doomu aadama bi lay dugg yooyu yëpp kon xam-xam yi koy maye moom it sàkku ko day doon day doon farat diine ko farataal waaye dund gee laaj dund gee ko laaj dund gi moo ko laaj bi ko dund gi laajee nag diine farataal ko gis nga kon ñaar yi niñ niñu ni ñu lëkkaloo ci wàllu sàmm bakkan wàllu sàmm diine sàmm diine kon xam-xamu diine yépp ci lay dugg xam-xamu diine yépp ndax sàmm diine mooy nit ki mën a gëm yàlla nañ ko war a gëme mën a topp yàlla nam ko war a toppe ñaar yooyu la gëm ko ak topp ko lu ci ne nag xam-xam mooy ma moo koy maye xam-xamee tax mu xam nu koy gëme xam-xamee tax mu xam nu koy toppe te loola mooy sàmm diine moo ñu sàmm diine nit ñi bañ xam yàlla gëm ko topp ko te loolu xam-xam moo koy maye xam-xam ya koy maye niñ ko waxee léegi la la ca war kenn ku ne moom farata ci kenn ku ne mu xam nam koy nam koy defe lu weesu loolu nag mbooloo mi war na cee am ñu ko xam ñoo xam ne ñoo ciy jiite nit ñi ñoo ciy jiite ñi ci des bu dee sàmm xel ba tey moom it xel lépp lu koy sàmm ba mu bañ a yàqu mën a def li tax ñu sàkk ko loolu day dugg ci sàmm ko waaye bu demoon ba am lu ko dalit lu ñuy fexe ba tàgg tàggale kook loola it day dugg ci sàmm ko su muy wàllum paj kon wàllu fegu ak wàllu faj moo xam ci yaram yu la moo xam ci xel mi la kon bépp xam-xam boo xam ne day dugg foofa day doon xam-xam boo xam ne sàkk ko moom it day doon farata ci mbooloo mi lu kenn ku ne waaye ci mbooloo mi dund ko laaj waaye diine ji nag moo koy farataal naka noonu sàmm alalit sàmm alal sàmm alalit ci jubluwaay yu mag yi la bokk moom it lépp luy tax mu mën a am xam-xam buy tax mu mën a am xam-xam boobee diine day farataal mbooloo mi am ko mooy mu am ci mbooloo bi kon ñu ko sàkku ba am ko ba mën caa taxawu man caa taxaw mbooloo loolu ay misaal la kon ngir wane rek ne dund gi lépp lu mu laaj luy tax dund gi gën a ñoŋ gën a baax gën a jàppandi lépp bépp xam-xam buy maye loola faratala mbooloo mi taxaw ci xam-xam boobu am am ñu ko am ba mën cee taxaw mbooloo mi ba mën caa jiite mbooloo mi noonu ko dund gi laaje moo waral it buñ ko seetloo àddina si rawante gi ñu rawante ci wàllu dund dunduk àddina niñ ci rawante rawante gi ci rawante dëgg dëgg buñ ko seetloo day dellu ci rawante gu ñu rawante ci xam-xam ñi raw ci dunduk àddina ñooy ñi raw ci xam-xam réew yi jiitu seenug dund dundug àddina laay wax nag fi mu ne ci àddina si laay wax mooy mooy yittey àddina yi yittey àddina yi réew yi ci jiitu ci man koo faj ñooy ñi jiitu ci xam-xam ñooy ñi jiitu ci xam loolu kon day wane ne xam-xam mooy tax ñu mën a faj yittey àddina yi ku gën a yittewoo xam-xam rek yittey àddinaam gën a mën a faju te ku xool ci réew yi rek mën koo xam réew mu jiitu ci àddina rek daa jiitu ci xam-xam itam ku xool gis ko Amérique gis nañ ko ni jiitoo xam-xam it ku ne xam na ne dacaa jiitu ba ci ay Chine réew yi jiit yépp dañoo jiitu ci xam-xam waaye réew yi des ginnaaw yëpp it bu ñu leen seetloo dañoo des ginnaaw ci xam-xam dañoo des ginnaaw ci xam-xam kon réew yi jiitu xam-xam moo leen tax a jiitu dañoo jiitu ci xam-xam door jiitu ci mën a faj seen yi àddina ñi des ginnaaw it dañoo des ginnaaw ci xam-xam tax ñu des ginnaaw ñoom it ci mën a faj seen yittey seen yittey àddina lu nu bëgg a tënke Baye Omar mooy kon rek waxtaan daañ ci gis nekkoon kon dëgg-dëgg xam-xam lu munta ñàkk la ngir mën a tekki ci àddina tekki rek mooy am li nga bëgg am li nga bëgg mooy réussite lu munta ñàkkale itam ngir mën a mucc walla texe ca àllaaxira foog naa waxtaan wi wone na ko waaye waxtaan wi it mën nañ cee gise ne ñi des ginnaaw réew yi des ginnaaw mooy réew yi yi yi yi ñàkk a jox yi te xam-xam na mu ware dama mas di waxtaan ak benn médecin ñuy wax ñuy waxtaan man ak man daal nit ñi muy wax moom nit ñi lu ñu leen di digal ñoom duñ ko def ma ci yéemu mu ne ma sëñ bi li am mooy nun xam-xam ci boppam lanu lanu warmaalut lanu fonkut nun nun nun Sénégal nun Afrique nun réew yu da yi féete ginnaaw xam-xam lanu warmaalut daal ne ma gis nga nun ñii di ay docteur li ñuy wax nit ñi duñ ko def waaye yéen ñi jàng lislaam itam li nga leen di wax duñ ko def yéen nun li ñuy def ci li ñuy wax xam la yéen li ngeen di wax xam-xam la waaye nit ñi xam-xam lañu warmaalut moo tax sunu xam-xam nun ñii di ay docteur ak seen xam-xam yéen ñi jàng diine ak di ko jàngale lañ yemale dañoo warmaalu xam-xam ci boppam loolu nag dëgg-dëgg da koo nuru da koo nuru lii wane na nuru na ko mooy leen nu wane noonu ni dëgg-dëgg teraangay àddina wala tekki ci àddina xam-xam moo ko mën a maye texe ëllëg mucc ëllëg xam-xam moo koy maye loolu lañ jàpp ne noonu la demee te wane nañ lu koy firndeel waaye nit ñi am na ñoo xam ne ñoom dañuy dañu jàpp nañ ne mën nañoo tekk ci àddina te duñ yittewoo xam-xam am na ñu bari ci nit ñi jàpp nañ ne mën nañ loolu ñu ngi koy jéem noonu la ñu bari jàppee ne ëllëg mën nañ faa mucc te te du teg ci xam-xam duñ yittewoo xam-xam duñ duñ duñ faale xam-xam duñ topp xam-xam. dëgg dëgg loolu day wane ne kon dañoo dañoo xamut xam-xam wala dañ ko dañ ko war maalut dañ ko joxut euh, wàccuwaay bi mu yeyoo loolu nag foog naa ne war nañ cee war nañ cee bàyyi xel xam-xam nag buñ ko waxee bu dee lu jëm ci diine xam-xamu diine waaye bu dee lu jëm ci yitte àddina yi xam-xam ya nga xam ne ñoo koy mën a ñoo koy mën a saafara xam-xam bu ci ne dañ ko war a wormaal ña ko yore ñu wormaal lente di leen ca déglu bu mu ci mën di doon fi ak defuñ loolu sunu dem ci diine dana des sunu dem ci àddina dund gi itam dana des Baye Omar loolu laa xalaatoon na xeeta ma des na ci ubbee waxtaan wi nga xool nag ba xam lu ci topp maa ngi jéggul bu baax a baax nag wasalaamullahi aleykum wa rahmatuhu wa barakaatu Rafah TV une chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer